di nuyu ñëpp. di mm-hmm. balu àq ñëpp. Mm-hmm. Euh, di nuyu suma xarit yi xam nga man dama naan dégg ay jeunes des jeunes cadres comme mm-hmm. Ndiaye. naan changer le système xale su bëggee ni dafa war a doon luy baayam jàpp ni moo gën baayam fi mu njëkk a nekk tànkam mooy wax dëgg honnête ak moom gis nga ñu toog saal li ñu seetaan ñu ngi toog fi yëpp. ñooñu dàq jàng ñooñu gën intelligent ay professeur d'université ñu ñuy seetaan ay juriste ñu ñuy seetaan ay ñu ñu jàngut am xel ñu ñuy seetaan sëñ bi il faut ñu indi comme ñu boobu ndox aar ma ko ñu bëgg affaire bi bal à terre daa yomb soriwul bal à terre. bàyyi sama na jege quoi lu jege la lu yomb loo xam ni wax jàng yuuxu yuuxu yëpp foofu la ñuy mujj. tu regardes les yeux dans les yeux. laaj la question bi li fi xew lenn la benn xale bu ndaw bu dëkk ci réew mi am ndey am baay di gone am vingt ans bu doon jamono Abdou Diouf majeur gu du wote vingt ans la am vingt et un ans daan wotee ni baayam da koo siif son père la violé c'est ça la vérité Sonko baayu xale bi la sama deuxième doom moo mag xale bi mu dëkk ci réew mi di jeune fille taxaw ne réew mi yëpp dina xool Sénégal nan nga un jeune comme comme aji Adji Sarr innocente vingt ans gën leen responsable yéen vous dites que des intellectuels lan la ko lan ñu consommé ñun ñëpp mooy réew ñun ñëpp ñoo ko bokk ku nekk ci am pàcc boo war a doxal mais ku laal sa morom na dem ca yu baax na doone benn ñu atte leen mais lan la Sénégal doxe noonu la adduna biy doxe Adji Sarr nee na bàyyam Sonko da ko violé ànk rek waaw même war a may gale sëñ bi du yàlla jàngal di mais bu ko violé wala violé wu ko mais dafa war a leer wax leen ma ci Sénégal fan lañ mën a jaar mu leer ful ci justice porte na plainte Ousmane Sonko salaamaaleykum ñu koo wax ngeen ni wàcc na yoon nangul naa leen mais ngeen téye rajo yi téye rëkk yi complot la Macky Sall da bëgg tëj nangam da bëgg tëj nangam mais xam nga la lay la question est simple et claire monsieur je te est-ce que Sonko a violé Adji Sarr oui ou non. moom est que xam na ci dara. waaw kon kon ñu noppi nag. dama koy tontu ma a dama koy tontu. man awma réponse bi. Mm. ah non. man honnêtement awma ko je vais être honnête sérieux envers Ousmane Sonko envers Adji Sarr fekkee ma ko xaw ma ci dara. xaw ma dama egg xaw ma Sonko daa violé. poser une question laisse-moi répondre ah. ma ma eggale ba ma xaw ma daa violé xaw ma violé wul. mais war naa xam parce que Ousmane Sonko n'est pas Bouba Ndour nii kii c'est quelqu'un ki dit que dama bëgg réew mi ngeen yor ma doon seen kilifa yéen ñëpp yërif leen di def awatu noo di mu neex maa mu naqari ma ëllëg bu ñu ko faloon donc ça m'intéresse ça m'intéresse <coughs> ngeen ay jeunes ngeen taxaw fi na wax la na ban réunion même comité question Nations Unies bureau bu ñu def à l'unanimité ñëpp kook ci bureau bi ñu def première réunion ñëpp ñëw mais assemblée nationale question de majorité la je le du affaire technique c'est clair et net réew mi ñooy xool ñu leen neex ñu ni Macky Sall yow jox la tant de pour cent sa parole ci assemblée kii na jox la nangam kii ñu ko jox ñu la dara ça c'est le peuple qui l'a décidé sur la base de ça ñu def prorata bi mais dans tous les bureaux au monde sport bi nga xam ne moo gën a démocratique au monde wax leen nañu def mais si le bureau est convoqué si le quorum est atteint on vote les travaux ont commencé wax la ban réunion au monde wala ban texte wax ne ni il faut képp ko kut bureau bi ñëpp ñëpp ñooy teew la fan la du Nations Unies du ONU du fenn bu dee fukki nit ak benn ko teg juróom-ñetti nit teew ëpp na sax juróom-ñett même de député kii na dix yëpp huit yëpp teew xaw ñaar ñi dañ waaye dañ ngeen ni dañoo war a bàyyi lépp yoon et puis deuxièmement je te défie maa ngeeg vocalu Ousmane Sonko bu njëkk a wax Ousmane naa jamais dit